waaw jërëjëf euh, man la Zakaria Kebe nekk chef de cabinet du maire de Fatick monsieur Matar Ba tey dañu daje woon euh, fii ci mairie bu Fatick gannaaw bi nga xamee ne artisan wu dëkk bi dañoo amoon ab ndaje seen biir mu am doléance bu ñu waxoon monsieur le ministre maire Matar Ba demandé ko ay outils ci jamono bi nga xam ne Revas mu ngi taxaw pour waajal màggal ak gàmmu loolu nag ba mu amee indi na ndimbalam ci woote appui financier jox leen. mais dañ ko ñaanoon ay uti moom itam mu daal di ñaan naataangoom ministre bi nga xam ne moo yor wàllu artisanat kooku daal di koy am li nga xam ne mooy ay kees à outils yum ko may ak machine yoo xam ne moom la ñuy diagnostiquer mais doomu Fatick bu nekk foofu aussi muy monsieur Bamba Sarr moom itam mu xool lan la ci mën a toftal mu yokk ko ci indi ko ñu daje woon tey ak artisan yi pour jébbal leen ko loolu nag bi mu amee monsieur le ministre ba ko ministère de l'artisanat jëlee jébbal ko bagage yi moom itam dafay woo ki nga xam ne rakkam la kóllëreem la compagnon président Macky Sall la muy le Daj Bamba Sarr di ko jàppale ci réew mi waaye di ko jàppale ci dëkk bi mu ne ko dama lay yónni Fatick boo demee nga fekk fa sama cabinet nga remettre leen li nga xam ne mooy matériel yi ñu jox ko artisan yi. donc mbir mi ni nga ko waxee noonu la demee donc euh, monsieur le maire Matar Ba moo ma yebal ci yéen des outils de travail pour les artisans am naa fa de matériel boo xam ne ñaanoon nañ ma ko pour màggal gi ak gàmm gi gàmmu gaa ngi ñëw yoon yi day am ay accident ak yooyu demal nga yóbbul ma leen ko muy un petit groupe bu Revas donc bi mu amee mi ne ma boo demee nag ma ko tegal ci sama loxo chef de cabinet donc noonu la demee mais bi may bi may ñëw tombe donc au niveau du ministère mu amoon ay collaborateurs yu ma sollicité ne leen kat maa ngi dem Fatick sama dëkk la monsieur le maire monsieur le ministre daf maa yónni waaye su ma demee yóbbu matériel mu toll noonu ma fekk fa ñu mel ni taala dina am na ñuy mel ak man ma ne ko léegi da ngeen may dolli tuuti matériel donc au niveau de votre dépôt ma dolli ko ci après daal di koy indi donc mu nekk euh, matériel pour d'abord les mécaniciens des caisses à xëy euh, matériel de diagnostic bu moderne ensuite am na matériel pour euh, les menuisiers métalliques ay moule ay meul ak yeneen genre pièces am na aussi du matériel pour euh, les menuisiers bois donc ak pour les coiffeuses benn kit pour les coiffeuses donc vraiment mu nekk suñu contribution bu modeste par rapport ak acte nga xam ne monsieur le maire yàgg na ko posé ci dëkk bi man ñëw naa fi ay yoon fekk artisan yi di réceptionner du matériel venant de lui sama ministre indi na ko fi monsieur le ministre Pape Amadou Ba Amadou Ndiaye que vraiment je remercie au passage pour sa disponibilité moom tamit parce que il a été diligent c'est lui-même qui m'a appelé pour me diir demal nga jëli matériel bi mu le ministre Matar Ba moom moo ko moom donc tamit ñu ñëw fekk fi tamit euh, ay discussions yu intéressantes fekk fi vraiment Euh, nit ñu bari ful bu bari ñu ñëw toog ñëpp constitué d'artisans et coiffeuses ak am na daanaka suma juumul je parle sous le contrôle de Talla lu mat six corps de métier yu fi dajee association donc vraiment ñu weccoog ñoom weccoog ñoom euh, xalaat weccoog ñoom si seen liggéey parce que daanaka dafa mel ni loolu sax moo nekkoon lu ñu fi indi di leen fàttaliwaat di président de la république def si secteur bi secteur artisanat donc euh, vraiment échanger ak ñoom bu baax a baax donc euh, déglu seeni attente euh, déglu tamit euh, voilà lépp loo xam ne ni ñoom yaakaar nañ ko ci ministère bi walla ci président mu def ko ci secteur bii di artisanat ak secteur informel donc weccoo ci donc en tant que acteur d'abord du ministère mais en tant que aussi doomu Fatick donc aussi acteur politique ñoo déglu leen. li nga xamante ni bii nii tey. moom la ñu jëflante ak euh, le maire le ministre Matar Ba ñun du ñu wax gulet parce que nag euh, yàggul dara jamono yi weesu rek comme ni ko le DAGE waxee à travers le ministre Pape Abdou Ndiaye xamante ni bii ñëwoon na fii Fatick le ko boo ñëw sama dëkk wax dëgg fa la fexeel ba indaale serite yi nga xam ne mooy artisan yi. bi ñu ci salle bii fi la ñu réceptionné ay machines à coudre jox ko tailleur yi mais auparavant avant cela yoroon na fi ay lot de machines yu bari séddale ko li nga xam ne mooy ñaari association des tailleurs def ko ak coiffeuse yi kon tey aussi bu dikkee tey jii nii en collaboration avec le ministère de mais aussi avec son frère le DAGE mu def acte bu toll nii nga xamante ni bii nii mboolem lay mécanicien les menuisiers métalliques les menuisiers bois les tailleurs les coiffeuses ñëpp tey jii vraiment gis na seen bopp ci li nga xamante ni bii mooy lot de matériel bi mu fi indi ñun duñu am lu dul satisfaction ak mbégte te di ko wax ne que suñu xel dafay dal parce que bu ñu gisee collaboration bi am entre le ministre Ba et son jeune Euh, le Daesh Bamba Sarr man boobu couple man dama cee am mbégte am di satisfaction parce dama xam li mu mën a jural li nga xam ne mooy les artisans kon loolu aussi man du ma def lu du ko applaudir mais tamit di ko leen ñaanal lu ñu man ren bu dee na yàlla nañu ko mën